wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi din mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu delsiwaat nañ ci fàttali gi ñuy fàttaliwaat njàngalem cheikhul xadim radiallahu taala anhu ci téere bi di nahju qadaa il di téere boo xam ne dafay jàngale ay teggiin ñu war a tàmbalee ci wamshi li ajli xaajatin duna ixtiyaal fal ixtiyaalu jaalibun ila nakaal mu ne wamshi na ngay dox li ajli xaajatin ngir aajo doon axtiyaalin ci lu dul puukarewu wala daagu ndax kat fal ixtiyaalu puukarewu di dox di puukarewu wala daagu jaalibun aji ñoddi la aji bijji la ilaa nakaalin jëm ci mbugal mu ne bokk na ci teggin daal booy dox na la aajo taxa jug waaye bul dox ngir puukarewu bul dox mukk ngir ngir ngir ngir puukarewu ndax nee na di dox ngir puukare wu wala wane sab sañse sax nee na yooyu kat dafay jural nit ki mbugal dafay jural nit ki mbugal kon saa boo jugee bay dox daal na la aajo taxa a jug waaye bul jug mukk di dox ngir wanewu rawatina wane sab sañse ndax mel na ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañ nettali ci bind yi ñu weesu jëmm joo xam ne dafa fonkoon boppam lool ci sañseeka wanewu buy dox di puukarewu nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala da ko jéppi ba wax suuf si mu wann ko loolu mu ngi ci riyaadu saalihin biñ ko weesoo yàggul kon loolu tax sëñ bi di ñu loo di dox ngir puukarewu wala di dox ngir jaayu moo tax mu ne wamshi na ngay dox li ajli xaajatin ngir aajo doon axtiyaalin ci lu dul puukarewu ndax fal ixtiyaalu puukarewu kat jaali buñ aji ñoddi la ilaa nakaalin jëm ci mbugal mu ne laa tadd xakkan na bul ree ad dëxra diirub jamono wala ci jenn jamono rek min xayri ajab ci lu dul kéemtaan wala tamit te bul jeng lil mas yi jëm ci dox min xayri arab ci lu dul aajo lu dul càkkute fa aajo mu ne na nga fexe itam yow taalibe bi bul jékki-jékki rek di ree amul njariñ booy ree mbir ma ngay ree na doon mbir mu mat waaye di ree loo xam ne amul njariñ moom nee na yow taalibe bi nanga ko wattandiku nanga wattandiku itam di dox te dox googu aajo wëralu ko maanaam jug rek di dem rek wëndeelu rek te aajo taxul ngay jug toog bam mu neex rek nga ne xaaral ma jug dem barab sàngam te amul jenn aajo ju tax nga fay dem nee na loolu itam na ko wattandiku yow taalibe bi wala takkun bul nekk itam tafitan di aji gestu bila talabin ci loolu ak sàkku fa kullu zi képp ci yi kat xamaaxatun ak ndof la naafa tey dàqonte na ak adab teggin nee ba tey itam bokk na ci teggiin maanaam yow moo xam da ngay dox moo xam da ngaa toog ngay bañ a gestu gestu bu bari moo xam dangay dox wala da toog bu dee da ngay dox booy gestu eh, la lay loo na doon lu am njariñ lu ci mel ne ñu woola walla nga gis ku bëgg a loru nga gestu ngir mën koo dimbali wala sax nga toog ci jataay di gestu rek fu ne nga xool fa nee na loolu yow tamit taalibe bi nanga xam ne loolu ak ndof la te it dafa wuuteeg lool ak ay ay teggin kon nee na nanga ko wattandiku bu baax a baax a baax yow taalibe bi di gestu ci lu amul njariñ gestu loo xam ne dara waralu ko dul dañ kumpa rek nee nanga ko wattandiku mu ne wala takk sif bul wuññi abadan mukk an sarawilika walif sa tubéy fa na ko loolu yu àddu dees na ko lim min tarki aadaabin mu bokk ci bàyyi teggiin wax wata moom yuraa dees na ko gis min siamil ashraari mu bokk ci jikko yi eh, ñu baaxul ña jikko yi ñu yées ña rek jikko yi ñu bon ña fussaaqi xasaana te mooy caay-caayi gàddug xasaan mooy mm, genn giir loon gu ñu wax xasaan ñoo xam ne xëy na dañ day am ay nit ñoo xam ne ñu bokkoon ci ñoom la ñu daan def loolu ta ña ko daan def ci ñoom mooy ña nga xam ne dañoo yées ci ñoom mooy ña nga xam ne baaxuñu ci ñoom zawil baari ña di waroom wan ginnaaw aw yiw ñi nga xam ne dañoo wan ginnaaw lu baax mu ne kon yow taalibe bi na nga wattandiku di wuññi sa tubéy am na ñu koy firee kiris koros maanaam sol tubéy wàccee ko ba sa tubay bi nga jiital di feeñ nee na loolu na ko wattandiku yow taalibe bi bokkul ci ay teggin ndax loolu ñi nga xam ne dañoo yées bon ci giir gi ñuy wax giiru xastaan ñoom ñoo ko daan def te ñooña lu baax moom waxuñu ci woon dara kon bul nuroog ñoom kon solal sa tubéy normal rek te bañ koo wàccee bañ koo kiris koros mu ne wax dar na ngay itam minal kas fi ci ak wuññu anil batni walis biir ba kasaa niki nii maa la nga xam ne bay na surratin nekk na ci diggante jumbux wa rukbatin ak bëti woom lisaa ngir lii fa innahu naka loolu kat simmatun màndarga la lil xumqi jëm ci ak dof wal jahli ak réer wa qillatil muruati ak néewi kersa wala néewi mbañum rus lañ koy wax waaye mooy néew kersa al muhazzama badi màggal moom kersa is ngir hiya moom kersa uxtu diini mooy mbokkum diine xaysu fuqidat foofi xamee ne ñàkk nañ ko rek laa yu jadu deesu fa fekk ad diinu diine kama sabata ne ko mu saxee anhum jëli ci ñoom mu ne ba tey yow taalibe bi maa ngi lay wattandiku loo ngay feeñal dara ci sa biir yow góor ki yow bu góor bi maa ngi lay wattandiku loo ngay feeñal dara ci sa biir moo xam li tàmbalee ci sa biir daal ba ci say wóom na nga fexe ba dara bañ cee feeñ ndax góor li tàmbalee ci jumbu xam ba ci ay bëti womam loolu mooy awraam kon nee na awra jooju na nga fexe yow ku góor gi dara bañ cee feeñ nga kon lay aay kon ngay sol kilot yu gàtt yi yow te kon taalibe war a sol kilot kilot yu gàtt ba ay luppam di feeñ rawatina ab biiram nee na loolu nanga ko wattandiku rawatina sax nga nekk mag nag boole ci nga nekk kilifa ba pare di sol ay kilot nee na loolu li muy tegtale rek mooy ku xamul wala ku amee ak ndof rek wala koo xam ne sax dafa néew kersa maanaam amul ay kersa amul amul amul rusukaay ndax mag warta def loolu mag warta sol ay kilot nee na kon loolu nanga ko wattandiku tey nee na néew ay kersa euh, kersa dafa doon loo xam ne mooy mbokkum diine nee na foo xamee ne nit ki ñàkk na kersa rek nañ xam ne diine nekkatul ci moom kersa mbokk mook diine ñooy ànd nee na saa boo xamee ne nit ki amul kersa rek nee na xamal ne amul diine loolu amoon na xaddis bu ñu weesoon ba tey ci riyaadu saalihin yonent bi sallallahu alayhi wa am gis kenn koo xam ne daf doon yedd mbokkam ci bari mu bari kersa yonent bi sallallahu alayhi wa ko bàyyi ko kersa ci diine la bokk ci ci diine la bokk kon loolu lañu sëriñ bi wattandikuloo lim ñu wattandikuloo loo tey kon mooy nit ki buy dox na ko aajo tax a jóg waaye bu mu dox mukk ci di puukaréew bu mu ree itam ci lu amul njariñ bu mu nekk koo xam ne itam moo xam day dox wala mu toog di gestu gestu bu bari loolu nee na màndargam dof la mu ngi ñuy wattandiku loolu itam ñuy bàyyee ñuy bañ a wàccee suñuy tubay ba ba tubay yi ñu jiital di feeñ nee na loolu bokkul ci ay teggin te it am na giir gu ñuy wax xasaan ña yéesoon ca ñoom ñoo ko daan def mi ngi ñuy itam ñuy sol loo xam ne suñu biir day feeñ wala suñuy lupp day feeñ ndax góor niñ ko waxee woon léegi awraam mooy tàmbalee ci jumbu xam ba ci bëti woomam ndax nee na loolu ki koy def daal mooy ku xamul wala ab dof wala koo xam ne rek amul kersa te kersa mooy mbokkum diine foofu xamee ne ñàkkeef na ko rek xamal ne diine amatu fa kon loolu mooy bindu tay bi leen jox dig daje ci